jërë ngeen jëf Ousmane Sonko ma demoon dampu ji dampam ji wër na jamono jamono ji massage Ousmane Sonko mooy mbambu jiine kay ñu xëyandool l'observateur nañu njiital parti Pastef def na démb ab déclaration ci guddi gi doon andi ay tontu ak i leeral ci coowal viol ak menace de mort yi ñu koy toppee salon de massage bi ko coow la toppee Ousmane Sonko nangu na ne dem na fa waaye faju ji moo ko fa yóbboon fa mu jaar ba yegg foofee moom Ousmane Sonko yegg na ko askan yu yëpp ba mu set wecc xam ne ne coow lépp li ko waral moo di Macky Sall mu ànd i ko kompolo ngir seet nañu ko sànke ci wàllu politique bi kàddu yooye Ousmane Sonko yëkkati discours la ko l'observateur tuddee la tribune nañu Ousmane Sonko mi ko yëkkati moom li mu ko tuddee moo di ay complot yoo xam ne ña ko nase ca kaw tuumal na ca complot ya ministre intérieur Antoine Félix Diome tuumal ca procureur de la République Serigne Bassirou Gueye Le Quotidien ne ko ak Macky Sall Ousmane Sonko nee na ñett ñoo nas seeni complot teg seeni pexe ngir seet nañu ko fexe sànk nee nay douleur lombaire noonee ci la ñu ko conseil sud beauté vox populi nañu démb ca déclaration ba Ousmane Sonko dem na ba becc bulletin médical am ngir rag ab deram leeral na it ne yoon ya fa dem yëpp di maase wu ji ñaari xale yu jigéen ñoo ko doon maase amu ci benn yoon boo xam ne moom Ousmane Sonko wéet na ak Adji Sarr ci benn ab sal anki dina kay nañu Ousmane Sonko leeral na démb waxit li mu jàpp ne mooy dëgg ci yëf yi waaye ca waxam ja bari na ay ponk yu lënt xelu bi nee nañu guddoon na lool ci njiital parti Pastef gi seet nu mu mën a def ba défendre boppam ci la doon liggéey ak juróom-benni avocat yi mu jël avocat bii di maître Bourse Pouye moom moom Sweet Beauté nee nañu dañu ko garder à ñoo ngi wax lu ñu xamul kenn téyewu ko bañ na ko ba sax moom ndaw si bu yàggul la wasin doom ju jigéen xale ba ma nga crèche ndax prématuré la la si dëggal ko nañu borom salon de massage bi kenn téyewu ko waaye nag fu journal bi wax nañu ne guddi ñu toll dem jëli Ousmane Sonko ca këram bokkagul ci yéenay sandarma yi sandarma yu section recherche yi daal li ñu bëgg moo di def ay prélèvement ci Ousmane Sonko la Sénégal nañu ak yi mi ngi gën di photo ñu ci Ousmane Sonko Sud Quotidien nañu sandarma ko tey ji ci suba ca section recherche waaye Ousmane Sonko nee na demul moom du noonee la ñu koy convoqué ndaxub député la bu ko sandarma yi soxlaa nañu jaar assemblée nationale libération tegal ñu ci ne moom Sonko teg na wit ne bu amee ay sandarma yu ñëw këram bokkoo jëli dana ko ñàkkante ak ñoom journal bi nañu fa mu làqu parlementaire am dimbalaanoo kiirlaay ma mu amee ci assemblée nationale tey jii ci lañ koy tàmbalee muri l'observateur di dëggal ne ci levée immunité parlementaire ci la jëm ñu dem ci journal li quotidien fekkaat fi coow li nee nañu Ousmane Sonko xamle ne ne ci jamonoy galaajateur ci la toll waxtu toog ci saaleeg nekk ci internet bi di xeex jeex na jamonoy jàmmaarloo defante raag banaaw ca la toll ndax ki ñu ko séqal di Macky ci moom dara suur François wax nañu it li tax ba waa police dem toogaanu ju siège bu journal Les Échos mi siiwal xibaar bi keroog leneen lu jaaxal journal bi ba tax mu xëy di ca wax moo di nee na ba yëf yu tàmbale ak léegi waa AGS association des juristes sénégalaises kenn dégguleen ci aji Sarr di maasekat bu jigéen bi tuumaal Ousmane Sonko ku bëgg xam mooy kan dëgg-dëgg xooli ko ci l'observateur ubbil yéenekaay bi Adji Sarr Fatick la fekk baax ñaar fukkeet la am ku teel a ñàkk yaay la baayam it ko ndax ci fukki ak ñeent yéenekaay bi nee nañu ci lañu ko indi Ndakaaru